jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokk yi seetaan wasaare làmb nu yooti nañ leen am kontaante ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen nuñ koy defee saasu ne démb dégtal nañ leen benn ndaanaan boo xamante ni ñu ngi ko jëlee woon Medina tey ñu ngi fii ci caaray géej certifié kenn koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb ci jàmbaaram ci jomam ci fulaam ak faydaam fépp komba bu mu am rek di nga ci gis jom di nga ci gis fulla di nga ci gis fayda kooku nag ñu dalal sëñ Basiru mooy Baye Mandione Baye maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay ginnaaw ma sant yàlla du jullit seen am alayhi salaatu wasalaam maa ngi sant di gërëm sama ñaari waajur di la ñaanal fan nekk gënal leen fi mu jugee yàlla na yàlla sama borom teeroo yërmandeem ak mboolem jullit di nekk am alhamdulilah jullit. di ñaan yàlla sama borom wàcc si àdduna bi yëpp xéewal wàcce ko fi kilifay diine kilifay aada yi ak ñi nga xam te sax duñ ay jullit yàlla wàcc leen jàmm wàcc ko mboolem jullit ñëw caaro gi seet si ma quoi. Mhm. Mbaye Mandione li ñu bëgg a njëkk a waxtaan mooy saison bi dafa kuma euh, da nga jël komba boo xamante ni diire na yow ak xoyantaan combat bi ñaata weer la def ak yow. non combat ëpp combat bi at ak deux mois la kay wala at ak trois mois yàgg na de ko ba mu taxawee moo yàgg mais renvoyé trois fois lañ ko renvoyé parce que moment yi waroon na bëre ma ak moom gàmm bi da doon taw quoi. te nag kenn du préparé combat di bëre ci biir taw. bi yàlla dogal na nawet bi jàll ci lañ ko la quinze bi passé ni xam nga bala ci am li am ci. Hmm. Uh-huh. lan moo xew ba promoteur bi. proposé la nga bëri ji Gambie rawatina mu jox la xoyantaan yow yaa ko bëgg wala promoteur bee ko bëgg. man mosuma xam xoyantaan xoyantaan ma nekkee xale danaa campagne Gambie ma ñëwee ba ci ma laaj leen kii bëre fi ñu am na benn mbër bu ñuy wax xoyantaan boobu la am sa dégg turam boobu nag avant loolu sama xel gënoon na ci moom sax ban yàlla dogalee may bëri am tur xam loo promoteur bi ñëw sees ma wax ma xoyantaan ma roi des arènes bu man damaa demoon pour titre boobu laa bëggoon a foxati ma loo ma yóbbuwoon mais du nit ki nit ki taxu moo la jóg. Mm-hmm. yor parce que benn ñi ma bëreel bëreewul ñoom maa këpp victoire foofu. Mm-hmm. te ñi ma bëreel bëreewul ñoom kenn xamu ko woon man ginnaaw yàlla ko xam fii Sénégal ñu bëri ñu bëri moom laay ànd ku ku ku xewantaan kuy kooku mais tey nit ku nekk rek boo méttul koo mënti bëreel bu tuddee si tur na tudd turam loolu la woon rek quoi mais nga neuf com neuf dix combat fa dem kenn liggéeyantu fa affaire bàyyi ba mu war a bëri ba ñu raay ma ba pare ba des lu sifle rek mm-hmm. arbitre bi jékki-jékki naan da ngaa am ay wee damal dagg ko parce que bëri moo ko signalé ma dama nga sama loxo ñu yaakaar dafa am lu ma nga fekk su sungu ci loolu sax ci wàllu wee bi ah. dinañ ci ñëw waaye combat liiru mm-hmm. bi fa fi mu jeexee mm-hmm. noo ko gisee man de ma soon ñoom kenn du daan quoi parce que yow mii lépp fa la fekk ñu daan nekkandoo ci euh, signature contrat ñu daan nekkandoo hôtel chaque jour xam nga di kaf di ree xam nga di naanandoo ataaya di bokkandoo di añ jafandoo lépp xam nga ba mu jëlee man Oliru Jaan sax naka ngir yàlla ak yonte bi sa ko maagu li bi masoon sax ngeen masindir quoi may di ko wax loolu xam nga mais sport la nag xam nga ñoom ñaar ku ci am ndam génnu Sénégal ah, loolu laa ciy wax quoi. <laughs> nga ñëw ba ci digg géew bi avant tout nee nañ bi ngay dugg ci làmb ji dañu laaj mbër bu nekk dafa war a am licence ci accompagnant yi nga àndal sa accompagnant lu tax amuñu licence. man man man man man sama jëm boppa lan na man maa am licence su Gàmbi man kese maay dugg gars yi sol blouson yi sponsor yi kenn du dugg ci làmb ji mais nag Bamba Dione may dugg tam man licence bi ma defaral sax am laa ci xam dégg laa ci am licence boo xamante ni daf ma daf ma visite contre visite mm-hmm. ah mm-hmm. euh, joxe ma joxe ma dix mille yóbbu ma sama photocopie quarante te gisuma licence photo wu ma mm-hmm. yaa ngi dégg loolu loolu la fédération bi la te bu dee Sénégal fii nii balaa ngaa bëre da ngay joxe licence bi te licence bi balaa nga kaa am di nga dem hôpital ñu xool la ba xam amoo benn feebar mooy visite contre visite bi boo paree jël sa copie quarante boole ko ak dix mille francs dem jox ko waa CNG loolu mooy sa licence mais man li fay licence defarul ma euh, dégg laa ci am dégg musuma gisuma sama licence foofu ménagère bi ma boolewoon Gambie ci porte bi laay doog a gisee ménagère bi jaxran te moom a ko wax mu ne man maay sa ménagère fii xaw ma yow rek yaay dugg fi yaa am licence su Gambie te man mi naa ma am licence su Gambie gisuma sax sama licence foofu nañ ma àndal kenn dugg mais loolu nu mën nekkee te boobu promoteur mu ci biir làmba ji yi dama néewal doole ci porte bi ma ñëw ci làmba ji ah, ba six heures demi laay dugg dugg ci làmba ji ñu téye ma fa ñu may maslaa ba ma demee nag ba xam ne ñii yaa ngi dégg yàq làmb moo leen ci laa ne gars yi nañ forcer porte bi ñu forcer dem nekk suñu préparation loolu mais Baye est-ce que xam nga ni règlement bi ne Sénégal fii ak règlement bi ne Gambie duñ benn Gambie dañoo am seen règlement wu bopp Sénégal boo fi bëree da ngay am licence am photocopie carte d'identité dem yóbbu sa visite contre visite mais bu loolu bu njëkk daaw daawuloon am fii Sénégal daaw ñu def loolu waaye kaawu maam baabu mi nga xamante ne moo dëkkoon Cambérène bi muy bëre mu ñëw ba ci làmb jo ñu gis ni ma aptul pour bëre ñu annulé combat fa lañ jaaree ne mbër buy defati euh, buy wutati licence da ñëw ñu defal la visite contre visite mais règlement bi am fii ak bi nekk Gambie duñ benn yow licence Gambie xamul nga ni da nga ko war a am avant fay bëri promoteur bi waxuloo ko. promoteur bi moom moo na ma daggal naa licence man moo ma ko wax daggal naa la licence la wax nee na man am naa licence su mhm. mais dama ne la pourquoi ñu laaj sama gars yi te ñoom bëriwuñu man maay bëri. te man licence bi naan am naa ko man baa ma yoon tegu mu bët licence bi photo ma def mu visite contre visite joxoo xaalis pour licence dan maa wax ne am nga yaa am licence su Gàmbi rek yaay dugg ci làmb ñeneen ñi kenn dugg dama licence bi ma defaral xaw fu nga defaree dan maa woo téléphone dañ na ma defaral la licence loolu laa ci am laaj ñu ma benn kayit laaj ñu ma dara kon erreur am na ndax promoteur bi waroon na laa wax bépp accompagnant buy ànd ak yow dafa war a am licence pour ànd ak yow dugg ci làmb parce que Gambie seen noonu la tëddee. règlement bu ne ci dëkk dañ ko koy nangu. Lamine dem na sax ba mu gi daal mu naan mu naan waa ji ah léegi defal yi licence man dinaa ko fay loolu la mujjee wax sama ménagère bi. Mm-hmm. yaa ngi dégg après moom nee na war na Lamine Samba jotul Lamine Samba affaire yooyu quoi mm-hmm. man daal su waay affaire du affaire licence du yooyu yëpp. ay ay woon ñoom bëggoon nañoo yàq làmb parce que làmb ñoom. yaa ngi dégg euh, baroon na ay paka paka parce que tey seen promoteurs yi ñëpp a taxaw ne làmb du fi am Gambie kii duñ tëgg leen làmb jamaïcain jóge Sénégal ñëw tëgg suma combat xoyantaan ne du fa amee hmm. mais jamaïcain dafa yeew dafa muus mu jëlee na drapeau su dëgg seen président ñu xam ne marat noo anière loolu moo waral làmb ji am hmm. mais bu toujours woon làmb hmm. nga dugg ba ci làmb ji ñëw ba ci diggi géew bi ñu ne Baye Mandione wéy dafa gudd ba daggul weyam bu daggul weyam du bëre làmb ji du ay affaire wéy man la ma gis ñoom ñoo ko le motif ba ñoon combat bi am seen mbër mi noonu wóoluwul te xam na ni jour boobu pare naa pare boo xamante ni waa ji arbitre la moo ko fi bàyyi loolu kese loon mais ay wee du ci dara man ma amul ay wee boo joxe da ngay loo am man li la woon boog mm. loolu doxe ay wee mm. man na man ay wee dama su ma joxe dama joxe lu ma am mais lu ma amul nan laa ko joxe wala samay baaraam laay dëgg ku ciy wax na wax lu mu xam man ba may dem yóbbu ma ay wee te bu dul làmb yooyu sax man dama lu yàkkata wee képp ku ciy wax na wax te yàlla tax même du jànjew ko maa ngi koy nuyu suma papa jooju dégg naa ko baa baba ngoon daa waroon dagi weeyam moom demuloon fenn mi ngi woon Dakar fee toog nit ki booy wax da wax lu wóor yaa ngi dégg man yàquma làmb te yàquma làmb ëllëg musuma yàq làmb ci àdduna kenn mus sax taxaw ñu ne baa ma yoon ma yàq làmb mu mais Moustapha Gueye sànn na ma ba am yoon dafa war a dagg ay weem dem bëri bëgg maa giñ affaire bi te man aw may weey ma joxee dama joxe lu ma am hmm. Moustapha Gueye bëri na fekk baa booy arbitre du waay sifle moo ne ginnaaw hmm. moo ne ginnaaw ba combat bi noonu la yàqoo ñu wax ba sonn mu du mu pour bëre moom hmm. ma est-ce que naa def loolu man kon man musuma yàq lamb ci àdduna kon ku ci wax na nga wax lu leer ñu nekkoon bi yëpp gis nañ affaire bi jël naa samay loxo wan ko caméraman man li ma gëm daal mooy képp ku naan Baye Mandione daa amoon ay wee bañ man maa wax loolu man ndax man sama jëmboo du ma xool samay loxo ñu nuy tooñ lu jàmm la da nga jàppoon ne stratégie ñu teg la pour ñàkk loola sa combat. xam na ne man damaa dëgër bopp xam na loolu ñoom mënuñu maa def loolu ma bëggul même su ma amoon ay wee tey dinaa dem joxe la ñu dagg ba doyal ma loolu déranger ma ay wee man la yàq suma combat. boo préparé combat at ak genn wàll ñëw ay wee di ko yàq yow say wee boo ko daggee tey balaa ginnaaw suba balaa ma semaine mu saxaat na ma yàq sama combat. ñëw naa fi ñu bëri naa man sax yow bu fekkoon nga am ay wee boo ko daggoon nan la liggéey liggéey boo xam dootoo daan bët si kaw suuf wala nan la yàq dootoo amati benn njëriñ ci àdduna mm. mais man gëwuma yooyu yàlla moo fi ne yàlla lu mu na ma si bàyyi ma njoon balaa ma a am dinaa ko am mm. génn àdduna lu ma war a ñàkk dama koy ñàkk man aw ma xel ñaar ci côté ba ñu ne baa nga dafa ragaloon ñu jàpp ko ci mystique moo doon joxewul loxoom naa man damaa dem jox sama loxo médecin a mm. fa nekkoon xool sama baaraam bi naan bi am na bi baaraam bi am na ma xam na ñii ku ñu ñàkkal fajal yi ma fi tax waay ne leen puus leen fële. nawet bi sifleel. arbitre bi loo wax parce maa ngi gis ngay jokkalante ak moom ay kàddu ba koy sànni loxo. non li mu xool amu may wéew mu bañ du sifle combat bi pourquoi du sifle combat bi man ñàkk sifle combat bi man loolu laa mer. yaa ngi mais boobu ànd naa àll yoo xamante ni man bu ñu siflee le combat bi la laa gisoon quoi gisuma woon leneen ñu bëgg a ko la si naa ay boobu arbitre bi li ma gën a mu ne du ma siffler combat fekk dama dagg say wee tamit aw may wee ma xool ko ma ne yow xanaa samay bëgg a dagg du ma bëre xoolal loolu mën nañ ñii sama après ci la sama xel dellu si loon bëgg noonu la siffler combat bi comme Sénégal am na roi des arènes man ma jël ma jël seen drapeau loolu kese la woon quoi laa gis mais du affaire yu weey quoi moo moo moo xoyantaan ñoo bokk ak ñoom ñaar arbitre bi semaine combat bi ñoom waa CNG bu Gambie danoonu rajo xoyantaan te jour foofu ci stade bi te wax na ma lépp te ku bokkoon si jotaay man moo tegal lépp yaa ngi dégg boobu xoolal ñeenti xoyant ñeenti combat xoyantaan yu moom moo ko yàq ndax ci arbitre bi ci ikiri ndongo si xoyantaan xoolal loolu man ma jóge fii dem Sénégal lu may ñàkkal fay dama damaa dof man budul affaire drapeau Sénégal budul affaire yi yëpp du ma amul doomu aadama mën a taxaw sama kanam girée amul ndax ñun ñëpp ay mindeef kese lan ay doomu aadama kese lan yàlla kenn gunu fi kenn ku lu seenaa Muhammad alayhi salaatu wasalaam bu ko weesoo neex ko yow la neex mais xam nga ni Gàmbi dëkk bi ngay jël xoyantaan waroon ngaa xam ni lépp mënoon la ca fekk bàyyi man avant may bëri Gàmbi yooyu newoon foofu yaa ngi dégg de ndax man àjjuma laa dem Gàmbi boo xefee du àgg hmm. ndax waa ji combat yi mu fi bëree benn àggu ci bu ki nekk day jékki-jékki bërëm yàgg teeb loo xam ne dañ kaa gaañ ci loxo yokk fi tuwaar yii day dalay téye ba wax la ci saako yi heure bi jox ko victoire hmm. mu ne ma bu jekkul la yàq làmba ji préparé loolu billaahi wallaahi taala ay Gambie ñoo ko doon wax ne bu jekkul moom bil sonn làmba daal balaa ñoo gëm ni am na heure bi sifflé ba kenn war moroomam mais bu ko ma fi yéen Gambie maa leen bokkul de maa leen xanaa boo jàppee ni daanaka ba toog ci biiram toog xanaa doon de yaam làmba dafa yàqu ndax hmm. man toujours man loolu confiance déggante pour lan. man moo ko mbër déggante ma ak moom aw ma numéro sax déggante ma soxlaa maa déggante ak moom sax. donc làmba sport la quoi day boole di taxaare mais soxlaa maa déggante ak moom parce que man dama ko séntu ci baax ma joon yaa dafa bu ma wax arbitre dafa bu ma wax euh, entraîneur am te sama entraîneur sama sama mag moo teg siège entraîneur toog. Gambie jëlee ko fa sànni siège bi taxaw sama mag ni leen far fos damay toog te boobu entraîneur waxamantaan mu ngi toog dañoo jéem a ñàkk affaire ñu duñu arrière la ñu daw trois fois saa wu ñëwee ñuy tooy si ñoom la jógee ñu daw kon bu ñu fay lamba ji yàqu mais noonu def ni caméra yi a fay doy moom bi wax man li jigéen mooy wax na góor waay pare nga euh, buñ la tëggee sa combat yaa xoyantaan Gambie nga bëri jiwaat. Gambie laa bëree toujours maa ngi dégg ñu naan ay Bama Gaye dañ koy aj Gambie man maa ngi njëkk aj ñoom ñu waa Gambie man maa ngi njëkk wala waa Sénégal na loolu xam loolu ñoom bëreetuma Gambie xoyantaan nag bu bu na ñëw Sénégal fii bëreeg man xool. dégg naa am na promoteur bu koy dox mais daa bëgg ngeen bëre Kaolack jot ngaa dégganteeg moom. dëgg loolu lu wér la am na promoteur ma ci yow pour ñu bëre Kaolack maa ngi moom mais man pare naa yaa ngi dégg mais waa fédération ne dañoo aj boo demee nee na xamal ne man maa leen njëkk aj ñoom waa fédération bu Gambie seen arbitre man maa leen njëkk aj kon yaa promoteur bi déggoo ngeen non ñu wax daal ba pare non pareegun déggoogun quoi ñu ngi wax quoi parce que am na ku am na keneen ku muy waxal quoi. Hmm. Hmm. Mbaye ñu jugee ci loolu. Euh, ku mel ni Luc Nicolaï doon promoteur tëgg làmb am jafe-jafe nekk ci loxo yoon te combat bi mag combat yi nga xamante ne yaakaaroon nañ du taxaw ren mu taxawal ko muy diggante Modou Lo ak Ama Balde ñu jékki-jékki dégg ni mu ngi ci loxoy yoon ban message nga am boo xamante ne mun nga ko cee wax. en tout cas di ko métti lu rek di nga wax ne jafe-jafe bu dul jeex yàlla bindu ko jafe-jafe moom day jeex wala nga dugg ak moom bàmmeel rek yaa ngi dégg mais li Nicolas li ko dal ni yéenoo ma ko te xam naa ne benn sénégalais yéenoo ko parce que li Nicolas bu ñëpp defoon moom léegi Sénégal avancé tey mu ngi liggéey xaalisam mu lew ko doom. mu jël ko di ko investir askanu Sénégal kooku ku war a jàppale la te koso man gëm naa ni euh, prison de place du Nicolas su ma soo nag président Macky Sall man sa doom la maa ngi lay ñaan nga dugal ci dossier bi sa loxo lépp seddu guy ñu bàyyi li Nicolas mu ñibbi këram àggale ay projet am quoi. parce que day bu ko neexoon mu téye xaalisam dund ci ak njabootam yaa ngi doye kenn ku ne doo ko def mais mu ngi mu ngi si terrain bi di jël doomu adama yi di leen jox xaalis ñuy bëri xam nga ku nekk di bëggal sa say mbokk Modou Lo Ama Baldé Sénégal ñoo ko soxla woon moom mu taxawal ko kon ba Sénégal yëpp kontaan tegu si ñaari fan natt bi ñëwaat ci kawam dal ko man de maa ngi koy ñaanal yàlla sama borom lii bu tegee ko mu gën a gaawee quoi ñu bàyyi ko mu dellu ci activité am solo fii lépp loo fi gis jeex mm. lépp ay nettalee mu jëre ñu ñëpp ay dee bàyyi fi xaalis bi bàyyi fi succès bi lépp da nga ko fi bàyyi mm. kon na rafetal rek bëggoon naa quoi mm. waaw man la loolu laa ko ñaan yàlla quoi ba pare en tant que warta am problème na si gaa yëpp ñaan wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko quoi sëñ Bas ñu ngi koy ñaanal ko Nicolaï yàlla na ko suñu borom génnee fee mu nekk ndax fi mu toll nii ñaan rek lañu mën ñuy ñaan président de la république mu dugal ci loxoom ba kii nga xamante ne mooy ko Nicolaï yàlla suñu borom génnee ko fële mu nekk na fee yaakaar naa képp ku fa dugg rek suñu borom moo la fa dugal ndax kaso kat jommut kenn ku ne dem na fa. bàyyi ñu jógewaat ci loolu ci li nga xamante ni ñaataat nga am ci la ci ñaataat nga man maa ngi le 26 décembre 1980 laa judd waaw. yaa ngi dégg ma commencé bëree deux deux mille deux deux mille trois laa commencé am combat doo di bëri ci arène bi. di sant yàlla bu baax a baax nag. ndax ba ma ciy dugg xam wax ay maanaam ay ay ay génération booy xale fuggu yaa ngi dégg ma xool ne lamb ji lamb bu góor la am ay champion yi fi nekkoon ma leen doon supporté yaa ngi dégg sama xol di sedd su ñoom xam nga ma doon ma doon doon supporté ndax seen gaynde ñoom yaa ngi moo tax man ma ñëw ci làmb ji moo tax ma dugg ci làmb ji quoi wax dëgg yàlla te boobu ba léegi nag rëccuwuma ko ndaxte yàlla dimbal na ma am naa ci tur comme samay morom xam yàlla boole na ma ci ni wax dëgg yàlla seetaan ma ci dara yàlla yàlla yàlla defal ma ma ci dëkk ma neex tukki te yaa ngi dégg te loolu làmb moo ko may quoi. Mm-hmm. may sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax làmb du boo ko mos a xalab ci àdduna man naa ne lu ma am moom la ndax yàlla moo jaarale sama destin ci làmb ji. waaw 1980 ba 2019 39 waaw kay moom laa am. Mhm. man dëgg la ma la wax man sama euh, xam nga gars yi dañuy wàññi at defar man man du du foyoo ma ko sax wàññi ma at yokku ma at da ana ma juddoo laal la wax nii. Hmm. bañ naa ko ba sama kayitu juddu sax sama yaay avant mi génn àdduna dama kaa jox mu sama mu ngi sama kalpe euh, ma dugal. Hmm. yaa ngi dégg am na mbir yu bëri yoo xamante ni di wàññi at na xale bu ndaw la di wax ay wax yoo xamante ni maanaam xam nga te loolu amul. Hmm. am na mbir yoo xam ne fi la ñu la jëlee dañu le 26 décembre xam nga 1980 à Thiénaba yooyu guy 82 la juddu. <laughs> gi dinañ ñëw ci ñu ci moom. waa Baye xam nga ñaata at moo la dese ci làmb. dëgg la ma wax man maa ñaanu yàlla sax ne ci làmb ji ah, di bëre ba 45 ans ñaanu ma yàlla bo sànq li ñaanu ma yàlla di bëre ba 45 ans ci làmb ñaanu ma ko yàlla. yaa ngi dégg ndax nit ku nekk tey am nga njaboot yaa ngi dégg amuñu la bëgg amuñu la bañ. xam nga da ne ci làmb jël si li nga ci moom dem. sa morom ñëw jël si nga ci moom dem keneen ak jël si moom maanaam sa wërsëg mu ngi ci làmba ji fekk jeexul yaa ngi dégg doo mën a xool leneen mais yàlla digga dimbal na man moom ak xale bu ndaw laa gaa xëy ba génn wàll gi ñoom ak fuuf mais sa tur bu bu teelee su dee gaa yi bëgg laa jox as boo amul yaa ngi dégg maa ngi ci làmba tey maa ngi ci ëllëg maa ngi si ginnaaw suba Baye ba tey yaa ngi dëkk ci ci tefesu géej hmm. ku ne xam na ni ma Mandione doomi lébu la ñu dégg immigration clandestine bi nga xamante ne mu ngi xew ci dëkk bi ay doomu réew mi ñu bëree bëri bëri ñu ngi sànku ci géej gi ban message nga am boo mën a lancer xale yi. man de li ma gëm mooy immigration clandestine lenn rek moo ko fi jëlee lenn yoon lenn laa xam ne bu ñu ko defoon mooy solution bi nga fiy jëlee ambassade président Macky Sall wax ak ñoom ñuy may doomu réew mi ay visa ñuy dem liggéey dañ ci réew mi loolu avantage la mais yow ambassade bi ko ambassade boo dem kenn du la may dara visa a tekki comme ñëpp donc nag yaa ngi dégg ni ku nekk li nga war ci àdduna yàlla bind na ko pare da nga am loo war a ñàkk da nga koy ñàkk yaa ngi dégg mais man sama solution ci man laa xam de ak sama xelam dof mi comme guugi ne na baa ma gën ab dof la man wéruma nee na ab man dof bi man damaay wax man dof yëpp la. non manuma déstabiliser moom bu ñuy wër dof ba mu dugg ci géew xotti yére xëppoo suuf si di nuróog ak golo kenn du xam lu muy nuróol kooku mooy dof bi. du ma sa morom yow du ma sa nawle ci dara. lépp baa la dàq lépp lu la laa la wax. waaw yaa ngi dégg secteur daal na gars yi ubbi ambassade may gars yi visa ñuy tukki normal loolu la quoi. bu ko defee kenn dootul xalaat di yëpp si gaal yi ko la. mu déposé de cent cent perte lay def. lu ma am jël lay yi ubbi ambassade jox gars yi visa rek bu ñu ko defee moom bu soob yàlla léegi tukki boo jaarul si kaw suuf ngay jaar te ci suuf wóorul. xam may gars visa loolu la. jërëjëf Baye xamal nañu li ñu amoon ci waxtu jot na lan nga buggoon wax talaaj ma. ne li ma lay ñaan yàlla yonte bi émission bi ki dagg dara. waaw ndax man su may wax du ma laaxatu. man bu yàlla sama borom bu bu yàlla yàlla yàlla moom ba yaa ngi dégg na yàlla kontaan rek. Hmm. yàlla yàlla ba tiim bu kontaanee te xam ne Baye Mandione li mu wax dëgg rek man dégg naa. Hmm. nit ku mer ak ku ñaar yooyu man loolu intéressé wu ma ndax fi àdduna la lépp loo fi waxal doomu aadama yaa ngi dégg na doonu leer. su ma sonn émission bi doo ci dagg dara. ma kontaan trop ci déplacement bi ngeen def ñëw fii. yaa ngi dégg kontaan naa trop yal na yàlla wàcc Sénégal jàmm at bu bees mi muy dugg yàlla bu kenn na feebar bu kenn am benn problème. yaa ngi dégg wooy daw luy newoon ci làmba ji ku ci man ay sunu papa du sekk. du yaaykati. yaa ngi dégg ak Pape Dieng Magu Bombardier ak xaritu Siteu bi euh, ak ak giri bu Malika. ak maanaam mboolem bi di nekkee ma xëy yal na yàlla sama borom teeru yër mën dem tàbbal leen sa àjjana. bis penc yàlla bu safaraam yàlla na àgganaam ñëpp dugg ci ñëpp dugg àggina ñëpp ñëpp ñëpp yaa ngi mm-hmm. di santaat yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax a baax a baax lépp xam xamante ne wax naa ko ci émission bi muy erreur lu ma juum doomu aadama laa nit kese la mm-hmm. doomu aadama kese laa te nit day juum. Mm-hmm. yàlla mi lu bindal ak morul ku nekk nag fa nga waxee fan lay tontoo wasalaam. Eh. noo gisee wasaare làmb ci làmb. ah non mën na yéen kay yéen a wasaare làmb te yaakaar naa émission bi bu duggee day gën a wasaaroo incha allah. ndax doomu aadama yi li leen dina soxla quoi bu bu duggee rek affaire day gën a wasaaroo yàlla na yàlla jàppale def leen ngeen dem ba ci sud yu nga ma Gambie xam nga émission bi daw ñëpp di oo affaire bi nice te vraiment nit ku baax nga da ay question normal doo dara yàlla na yàlla jàppale quoi sa a xam loo leen bëgg chaîne Bachir ah moom borom sulu cer naa da jàmbare ngeen dem incha allah yàlla na yàlla jàppale Sénégal yàlla wàcc fi xéwal ak jàmm ak salaam xam nga la guy gi dem rafetal ni faj ko bu jeex jërëjëf Baye Mandione dafa mel ni guy gi kalam la daa mel ni mo guy gi ay doom nijaay doomu bàjjan la mbokk yi waaw oh, oh, oh, man guy gi bi danga fi def yooyu damay ree bay bëgg dee kër gi fii nii bu def yooyu soo yooyu barke Rasulaay damay ree bay mbëkk bi laa kër gi fii kenn du kenn du noyyi eh. billaahi ak ah, buy laajte buy làkk français dofam yooyu dañuy ree ci kër gi bay bëgg a dee xam nga rek comédien la quoi il faut ñu koy lii xam nga rek man du ma noonam de barki sëy naa li ma xam naa ni sa xol jàmm rek nga jàmm rek nga ko yéen fi ma tontoo fa laa waxaateeg moom bu subaa tontuwaatal ma ma ca baxaat la ko man pare naa du la may dara foofu foofu baatare ma coupe wasalaam jërë ngeen jëf sëñ Basir ah sëñ Bas dégg nga lee la bul ci dagg dara léegi <laughs> nga bàyyi lépp mu dem jërëjëf Baye ma joot ñu ngi am kontante bu baax a baax a baax ak mbégte jàkkaarloo waat ak moom mbokk yi ñu xamal leen ni rek dañ fee ñëw ngir liy waxtaane jëmale làmb kanam ndax wasaare làmb lépp lu ñuy dégtal askan bi bëgg nañ mu doon loo xamante ni njariñ la ci réew mi bàyyi ma joon ak guy gi duñu ay noon ay doomu ndey lañ waaye làmb moo tëddee noonu guy gi daa wax delloo ko bàyyi ma joon wax sànni ko mbokki làmb noonu la demee ndax guy gi wax na benn message nee na Baye Mandione bi muy bëree Gambie ak xoyantaan damaa toog ñaanal ko pour yàlla may ko ndam kon kooku yéene ko lu bon te Baye Mandione léegi wax na ci xolam ni moom jàmm rek la yéene guy gi kon làmb moo tëddee noonu ndax guy gi loolu mu def noonu rek la war a mën a def doomi réew bu jugee sa réew dem ci réew jàmb di wut dara loolu rek nga ko mën a ñaanal muy ndam mbokk yi nu ngi leen tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko di ñaanal su baax a baax a baax sama waa ji sama xarit bi sëñ Basiiru borom mbég meeg taar mi borom saraax ci xew-xewu làmb am naa kontaante ak mbégte di ànd ak yow Baye noonu lañ koy defee saa su ne ak beneen numéro ci wasaare lamb ak beneen daanaan jaa ngeen jëf jaajëf Baye. jaajëf jaajëf